xamne yu sahilu dana jappal dana yombal umara dunya mbiri aduna wal akhirati ak al-akhirah kal xiyali nik ay pexe fi tala bi risque ci sak wërsëg wa na ak mucc min xamaraatil mawti ci leug leug de wala tis tis de wa min shada'id yawm al-qiyamati ak ci tartale bis penc taqawal laay ragal yàlla bokk na ci li nga xam ne moom day yombal say mbir ci adduna ak alaaxira nga xam ne bokk na ci pexe yi tax daal nga mucc ci tistis yi dee ak tistis bi penc ba noppi am wërsëg wu yaatu te jàppandi fii ci àdduna la ca ëpp solo te jiitu ci mooy taqawal laay ragal yàlla waaw li taxa mucc ci lépp loo ragal am lépp loo bëgg ci àdduna ak alaaxira ragal yàlla ca jiitu qaala allahu taala borom nee na wa man yattaqi ku ragal allah yàlla yajxal kon mu def laxoo laxoo ñeel ko maxrajan ab génnukaay ku ragal yàlla yàlla defal la bunt boo aw génn ci lépp lu lënt ak lépp loo ragal ak lépp loo xam du yiw qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonente bi sax firi na ko maxrajan jee mooy ay li mu ci namm من شبهات الدنيا كلنت أدنى ومن غمرات الموت أكي لق لق ومن شدائد يوم القيامة أكي ترطري بسبينش قال هو احنا في كتاب النورين من يونت بنانا بسم برم نيو من يتق الله يجعل له مخرجا داب غوخنا سورغ لا يالا يال دخل بنتو بو جار بو متي لنت ادنا متي متي ده ترتري بسبينش wa fihi nakar na ci kitabu nurayni aydan qala allah ta'ala man yattaqi ku ragal allah yalla yajhal ko mu def nyal ko min amrihi ci mbiram ma yusra ak jappande fure ko ne ay limu ci nam sahala kon yombalal allah yalla xalahi ci mom amra dunya mbirum aduna wal akhirati ak al akhirah bas sun borom ne wa man yattaqi yajhal lahu min amrihi yusra ñene lolu moy yalla yalla da koy yombalal aduna ak al akhirah yep da yombalal ragal yalla yalla ya yombalal la mbiri aduna al akhirah hmm amun yattaqillah ku ragal yalla ya jaxal ko mu def lo ñal ko maxarajan ab gennukaay way oyar suqu tem koy wërsegal min haythu la yahtasibu ya ya ci fo xamne du ko fokk yani yaxni dafa jublu yu barik mu barke lo ñal ko fi ci ku ragal yalla yalla defal buntu boy genn ci lepp lo xamni gënut ba noppi wërsëg bi na wërsëg bu yaatu woo xam ne sax foogoo ko woon mooy day defal barke ci wërsëg wa nee na wa min zaalika bokk na ci loolee kasratul istixfaari barik sàkku njëggal ana alleyli ci waxtu yu guddi wa atraafan nahaari ak cati bëccëg bi bokk na ci lii taxa mucc ci àdduna alaxira ba noppi bari wërsëg xéewal bokk na ca nga bari la jéglu sa borom ci waxtu wu ne mi ci guddi muy ci pecc rek fo tol di bari jeglu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man la sam ku taqo al istighfar jeglu jaxala kon def allah yalla la ho ñal ko makhrajan ab kay min kulli dayxin ci gep khat wa farajan ak min kulli hammin ci lepp ñakare wa yusran ak yombu min kulli husrin ci gep jafé wa rasaqahu mu wursagal ko min haythu la yahtasibu ci waxam du ko fokk ne yonente bi nee na ku taqoo listixfaar sa ko taqoo di jéglu rek foo toll lépp lu xat yàlla dina la ci génne lépp lu njàqar yàlla dina la ko teggil lépp lu jafe-jafe yàlla dina la ko yombalal noonu wërsëgal sax bu wërsëgal la loo xam ne foogu ko woon wa bokk na ci alwudu njàpp li kulli xadas ñeel mépp toj bokk na ci liy tax a mucc ba noppi a am xéewal àdduna ak alaaxira taqoo am njàpp saa yu toj lay daal jàppaat qaala ibnu salaam radiallahu anhu ibnu salaam abdullahi la tudd dafa bokkoon ci yahood yi gannaaw gi nag mool batigu tuub moom dugg lislaam bàyyi gaaye ca yahood ga nee na fekk naa fii baadi ma ci lenn li nga xam ne an sala wàcce na ko allahu yàlla taala kawe na ni ànnaxoo naka man tawadda ku jàpp li kulli xadas ñeel mépp toj wala mu yekkunte nekkut dax xaalan di ab duggkat xaalan nisaa yi ci jigéen ñi fi buyooti ci néeg ya yak yaktasib sibti fagut mal alal bi xeyri xaq ci lul àq ci lul dëgg rusi xakon ya wërsëgaleef ko min dunya ci aduna bi xeyri xisaabi ci ludul xisaab ibn abdullah ibn salam neena gis fek na ci yenn téere yalla wacce xeyna kon da ko jang ci lu melni tawret mbay nega mom moom daana seen jang moom par xam-xam lo woon nee nañu foore yëxal la mu ci islam xeyna fofu la ko jangé mune koo xam ne da ngay def saa yoo tëjlee daal di jàppaat te doo nekk dugg ci jigéen ñi leen fekk ci seen néeg te itam booy wut alal da nga seet lu lew te bañ a seet loo neex rek nga daal di wute ne loolu ko ko taqoo yàlla bare sa wërsëg ba kenn du ko mën a takk ka kenn du ko mën a takk ka wàññi wërsëg dina bare bare ba kenn du ko mën a seet num toll ba tey wasalawaat ak julli ak alxamsa yu juróom bokk na ci taxa mucc te taxa bari xéewal fonk julli juróom julli juróom fonk isa uqimat dem taxawleef na leen fi jamaatin ci mbooloo bi xoddoori xalbin ànd ak teewu xol wa xushuuxin ak ragal yàlla wa taxdili arkaanin ak jubanti ay ay ponk mooy jubanti ay cër neena julli juróom boo ko dee ci mbooloo te ànd ak teewlu ci sa xol màggaayu yàlla soo cër itam ne la sant nga jubal cër yi jubal xol bi nga cër yu ne la ci wax nga def ko xol bi itam yaa ngi teewlu nopp di jullee ci mbooloo ne loolu boo koy def rek daal di bari wërsëg daal di bari xéewal mucc itam boole ci qaala laahu taala suñu borom nee na yonente bi wa amur digalal ahlaka sañoñ bi salaati ci julli wastabir te nga muñ alayha ci julli laa nasaluka déet nu lay laaj risqan wërsëg ndax nax nu nun nar suqu ko daanu la wërsëgal wal xaqibatu te mujj ñu sant mujj ñu sant li taqwa ñal na ragal ya yalla su borom ne na te bi julil te digal sa wa kër ñukoy def te nga muñ ñoom itam ñu muñ ci di def ndax kat lool na la ko sant ne wërsëg mom na la ko amel yow sakkuñ ko ci yow nu koy noo la koy jox noonu wërsëgal di wërsëgal doomi adam yépp te nag mujj rafet mom ñu amee ragal yalla rek ñokoy am ah, mujj rafet mom ragal yalla rek إخراجه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتهن دم جلنجلين كلهن كبتنهم فك بو يعني دفع جبل الخمسة جلي جروم حلت كون فتي عن كواليس هذه جلي مقدة بس بس وأطلقت يوي عن كتيو هذه جلي مقدة كولري ولا لنجالون سولوس wa sarafat te wëlbati an ko walis na haasihi gile baliyatan musiba xasimatan guy aju rëy wa wadaxat te teggi mooy te sippi an ko walis na haasihi gile kabiratan bakkaar bu rëy wa xasalat te fóot an ko walis na haasihi gile moo bi xatan aji alage ban daal dafa mel ne jur yu juróom yi boo leen dee saxal genn gu ci nekk rek da lay andil xewul googu gee yeewu ci ab yeew bi ñu la yeewoon gee teggil la luñ la tegoon gee wëlbatil la musiba mu jëm si woon ci yow gee sippil la bàkkaar bu rëy gee fóotal la lu bon loo xam ne loolu la naroon alal la fekkee ne farata yi moo amee njariñ noonu mu tekki nag ne suma nawaa filuka topp say naafila zulfa lu lay jegeel yàlla la maanaam ko defee nag naafila yi moom boo ko barilee ngay gën di jege sa boroom rek ndax suñ boroom daa waxan hadis bu wër bu ne lim gëna soxla ci jaamam moy mu taxaw temm ci farata yi waye nak bu taré farata yi ba nopi di bari na fi lay dem mujj rek mu sopp ko dal di wax nu muy bare njariñ lool gëna bu ko soppé xam kon na fi lay bax na lool wa man salla ku julli as salawati julliya al-khamsa yadi juróom fi jamaahatin ci mbolo fa khad mala kon al barra jéeri ji wal baxara ak géej ga xibaadatan ci jaamu yàlla nee boo saxee ci jullee julli juróom ci mbooloo xamal ne ko na nga am tuyaaba ju rëy joo xam ne xajul fenn moo tax mu ne feesal nga jéeri ji ak géej gi ci jaamu yàlla mooy kuy saxoo julli julli juróom ci mbooloo daal mi ngi def jaamu yàlla yoo xam ne xajul fenn wal xiilatu pexe ma li xuduril xal bi ñeel teew xol ba fi salaati ci julli gi an yadkhula modi mu tabbi fiha ci julli ga wa qad qada te fekk na mu faj ashkhalahu ay soxlaam wa an yakun ak mu nek ma'muman di ma'mum la imaman du ciagem iliman wa an la yanzura ak mu baña xol ila ma jëm ci lo xamne yulhihi dana ko soxlaal wa an la yakun ak mu baña nek fi mawdihin ci ab birab yasmahu bu dana deg ci birab bu ma lo xamne yudi da koy lor ene bok na ci li tax bo dee julli mën a bo amé yenn soxla nga faj soxla yi ba nopi door a tàmbalee julli ndax boko defut bo tambalé julli sa xel dem ci soxla yooya muy luy sayte rek xel ba noppi ca bala nga dugg ci julli so mané mënee doon maamam itam mo gën doon iliman ndax da melni ne li ngay mëna a ci bo doone maamam man na am doo ko man ci bo doone iliman su ko defé itam nga fexe ba sey sey bëtt bañ di xol dara lo xamni sam xel da cee dem nga ko xalaat nga bañ a jullee ci béréb boo xam day am looy dégg ci say nopp ndax li nga dégg ci say nopp da koy daal tàmbalee xalaat kon lépp loo xam ne mën naa am lay lor boo dee julli rek kon na nga fexe bul nekk ci béréb boo koy déggee su ko defee itam wa an salla ak mu jullee fii mawdihin ci ab béréb mudliyun bi aji lëndam fa huwa moom ajmahu moo gën a boole lil xal bi ñeel xol bi wa ahsanu te moo gën a rafet lil munaajaati ñeel déyaale yàlla ba tey nee na boo mënee jullee ci béréb lëndam moo gën ndax ci ngay mën a téye sa xol ndax doo gis dara doo dégg dara itam xëy na dégam foofu wéet na foofu daal ci bérébu lëndëm bi ci ngay mën a gën déggoo ci sa xol li ngay def ci ngay gën a mën a rafetal déyaaleeg yàlla gi ndax fal musalli aji julli ji yu naa ji day déyaaleeg rabbahu boroomam fay nam yekkul ndéem nekkul rek yaraahu di ko gis fallaahu yàlla subhaanahu sore naa ko lépp leelul ci moom yaraahu dina ko gis wa yuqbilu te muy dëgmal ilayhi jëm ci moom nee na xamal ne boo dee julli dangay ngay diyaaleeg sa borom kon nag loolu war nga koo bàyyi xel bu baax a baax xam ne bu fekkee ne yow gisoo ko itam moom mi ngi lay gis wal yadkur nay fàttaliku al musalli aji julli ji al jaxiima sawaraw jaxiim wa xawlahu akum tiitam wa yowmal qiyaamati ak bis penc wa ak yàggaayam wal mawta ak wa karbaxoo ak njàqareem wala xan laxaa te xëy na lay julli googu salaatin moo di aji mujj julli yu sallihaa gug dana ko julli kok dana ko julli ene bo di julli ngay fatlikou birum de ak ni mu metté ak bis penc ak namu yagge ak sawara ak namu doy war ak xéti ci ci bari yoy ko defé nga nga fàttaliku tam ne kat julli gi nga julli bo tut moom ngay mujjé julli ci sa dund tax man na nga ca top lu fekk ci dund wa minhu bokna ci aidan ba tey salatu dhuha julli yor yor bokna ci li tax nga mucc te bari wërsëg xewal day saxo jul yor yor wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salatu duha jul yor yor te jurru day ñoddi ar risqa warsak watan fi tammi daq al faqr ñak aw neena yonent bi neena jul yor yor da lay ñoddil warsak la ñak watax kon jul yor yor bokku na ci joxe warsak day taxa muccu wa salatu tatawwu ak julik ciobare wu ngir yalla ñena bari la julli julli nga xamni warul ya ko bari wu diko def rek mi xet fi lay ci julli loolu dana taxa bari wërsak taxa mucc itam قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة يا أبا هريرة وأمر دقل أهلك سنين بالصلاة تجلي فإن الله نك يعلى تعالى كوينا ياتي قد نلا دقل تنلا أنجل برزق من حيث لا تحتسب فوق من دوك فوق xam nee na yonante bi moo waxal Abu Hurayra ne ko del julli te di ko digal sa kër lu ngeen mën ci faratay moom sañu leen koo bàyyi waaye nag bu farata yi jàllee lu ngeen mën ci naafila itam ngeen di ko def yaag sa waa kër loolu day tax yàlla wërsëgal la wërsëgoo xam ne foogoo ko woon sax wa min zalika bokk na ci loole as sadaqatu saraxe wërsëgoo xam ne foogoo ko woon sax ومن ذلك بكنا تي لولاي الصدقه صرخه صرخه دنا تخ يالا بري سورسك قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصدقه صرخه تنمي داي دولي الرزق ورسك وتسيد تمي دولي في الخمر تي دوندغا اه يونت بي ني صرخه يوك سورسك دول توفن مانام داي تخا غود فان تبري ورسك موم صرخه وقال صلى الله عليه واله وسلم man am laqa ku ñak fal yu taajir na yaxantu ilallahi jëm ci yalla bi sadaxati ci sarax ya. nee ku ñak te bëgg a woomal day jëflanteeg yalla ci kaw sarax jaami yalla yi tax bu sarax jaami yalla yi mi ngi lebal yalla te bu ko yalla fayé rek koy fay lu jeexal lu jeex motax te yalla di bari